asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñii ngeen gis day danoo ñëw ci ab épicerie di jënd seeni mbir mbiri bopp ak seen ravitaillement xale bu ndaw bu jigéen bii nag ci ñoom la bokk dafa gis ab gato bëgg ko waa ji wàcceel ko ko ndax jotu ko mu ne ko lii nga bëgg a jël mu ne ko waaw mu daal di koy jël daal di dem ca maamam bi noppee nag dem ci gérante bi mu xoole leen prix bi waaye nag gato bi xaw naa cher xale bu góor bi nu àndal bu ndaw bi di génne xaalis bi pour fay konte waaye nag matul mu ne ko maam matul de maam ji ne ko ah kon de soxna si jéggal ñu nan ko bàyyi ba beneen yoon xale bu jigéen bu ndaw bii nag loolu mer na ko mu ne ko maam gato bii dey sama maam ja ca kër ga laa koy jëndal nañ ko jënd maam ji ne ko gannaaw xaalis matul nañ muñ rek ba beneen yoon xale bu ndaw bu jigéen bi nag mer na ndax gato bi rek la bëgg daal di gàddu ay mbuusam nag ne mag leen di jiitu moom mer na magam ju góor ji nag daw di ko aw ci mbuus yi ndax xëy na diis na ci moom ñu jël mbuus yi nag daal di dem ànd ak seen maam ju jigéen ji di dem waa ji nag ñëw na ci gérante bi ni ko gato bee boole ko ci léegi may fayaale mu daal di dem dab leen ni leen am leen gato bi yéena ko moom maam ji ne ko déedéet ñun moomuñ ko mu ne ko jël leen fay naa ko ba noppi jël leen rek maam ñi ne ko a ah, jërëjëf sama doom yow de ko baax nga yal na la yàlla fay waa ji ne ko yaay lii amut solo ndax man mii ba ma nekkee xale demoon naa ci ab épicerie bëggoon fa am mbir ànd ak sama yaay waaye sama yaay amul woon xaalis booba mu ne ma nag naa muñ ba beneen yoon fekk booba am na góor gu taxaw sunu wet di dégg moom góor googu nag bi mu ñu déggee am na lu mu doon bëgg a jënd waaye ginnaaw bi def ne nañ ko bàyyi la muy jënd jëndatu ko bàyyi na ko mu jël xaalisam fay la ma bëggoon daal di koy jënd soxna soosee jox ko ko mu ñëw fekk may wax ak sama yaay mu daal di may jox la ma bëggoon moom góor googee ba ma ko joxee nag bég naa kontaan naa lool ma bëgg nag mbégte boobu ma bégoon loolu ñu ma defaloon ma defal ko kii nga xam ne bëgg na ko moom it maam ji ne ko ah jërëjëf sama doom yow de ko baax nga wax dëgg yàlla mu ne ko ñoo ko bokk amut solo mu ne ko kon de defal ma fii sa numéro téléphone ndax ma lay mën di jokk waa ji nag bindul numéro waaye ab texte la bind jox ko xale bu ndaw bi ne ko téel ma ko bu baax nanga ma ko gardeel dégg nga xale bu jigéen bi ne ko waaw ñu daal di continuer nag dem ci seen kër waa ji moom continuer dem aw yoonam bi nu agsee nag ci kër gi xale ba daw ni ko maam am jëndal naa la gato jëlal jëndal naa la gato magam bu góor bi ñëw ni ko maam moom rek jënd ko ñun ñëpp ko jënd mu ne ko jógal fii mbiri xale rek ñu daal di dem nag pour préparer gato bi maam ji ñëw ni ko tey day gato bi xawoon naa am jafe-jafe ndax benn waaye moo ñu ko sax mujj jëndal far xale bu jigéen mu ndaw bi ñëw ni ko maam am lii lañu jox ndekete góor gi toog ci chaise bi tey moo dimbale woon waa ji leen dimbale ba mu leen dimbale nag daf ko bindaloon ab texte jox ko waa ji texte booba la waa ji denc texte booba nag le même texte la bindaat jox ko xale bu ndaw bu jigéen bii moo tax bi ko góor gi xoolee ñu nuroo mu bind ci ni kat lu baax day des ci àdduna ba faw kon nag mbokk yi dañ ko déggee noonu tab yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam mas naa wax benn saxaaba ni ko laa taxqiranna min al maarufi shay'a bul xeeb dara ci lu baax kon lépp loo am ci lu baax defal loo xam ci lu baax waxal ndax borom bi dana la ko fay fii ci àdduna te dana la ko fay ëllëg yowmal qiyaamati kon yal na nu yàlla defal jàmmi àdduna ak jàmmi yowmal qiyaam defal ñu tawfiq te defal ko mboolem jullit assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.